asalaamaaleykum wa rahmatullah asalaamaaleykum wa rahmatullah mardi 10 mars 2020 ñu ñëw ak yéen ci yëglekaay yi moo xam sunu làmb la record wala Leewtoo TV bu dee yëglekaay bi nga xam ne nii nag moo di sunu làmb la moom la mu xëyee mu mel ni ki nag gaaña daal boo bëggee dëgg-dëgg de seen geraw ba mujj na leen wax xat xat xat xat muy arbitre ndax nag aw yet génn la. wala la raw ga ñu fëgg leen ko ba mu saf sàpp sàpp sàpp ka jëkk mooy Malick Ngom ak Babacar Diop ñoom daal juróomi yoo xam ne day nee nañ leen ko dootu ngeen wàcc ci géew bi naan da ngeen du soufflé yéen moom cinq ans ngeen di toog moom lañ leen aj ñaar ñooñu ñetteel ba muy Aboubacry Darame moom ñaari at lañ ko aj moom tamit yoo xam ne ferme la yoo xam ne moom itam du wàcc fenn làmb ji naan mbir yi jàppante leen wala bàyyante leen mel ni kon ñoom ñett ñooñu moom loolu la ñu leen def ñeenteel ba nag di ka nga xam ne nii moo di Sitor Sitor moom moo ci a metti le moom moom dañ koo ne yow li am ba des yow Sitor moom suuf la làmb moom dootoo ko def ci Sénégal à vie déedéet loolu moom dootul am pare nga ci naan mbir yi jàppante leen bu leen jàppante nee ko daal yow Sitor moom dootoo arbitré ci làmb ci réew mi jeex na ak dee ñoo yem loolu mooy li nga xam ne nii daal moom la seen daal di jël ay dogal def ko jëmale ko ci arbitre yi nga xam ne seen droit la ñu jàpp ne moom la ñu doon laaj far lii tey fekk leen ca mu mel ni kon daal coow loolu fi mu nekk nii day gën naa ubbeeku gën a juddu feneen foo xam ne moom coow amoon na wala boog ay ñàkk déggoo wala ñàkk doylonte muy biir Pikine mu mel ni ki nag retrouvailles maanaam amaat na àndaat doon benn moo xam Ama Baldé la Eumeu Sène la wala Boy Niang ñoom daal fi mu nekk nii moom àndaat nañu daal doon benn mu mel ni kon daal union fait la force na ko tubaab bay waxee ànd daal la ñu fas yéene def moo tax nag ka nga xam ne nii moo am di Abdou Bakhoum di manageru Ama Baldé moom ka muy tànkaafu ci ànd booba du kenn ku dul Tapha Guèye nee na ko Tapha Guèye nag dafa war a bàyyi di def naan wala muy dox di wax naan mburu Pikine nañu bëre booloo jaxasoo bëre Abdou Bakhoum nee na ko Tapha Guèye génnal ci nun génn ci sunu ay wax te bàyyi nu ngir yàlla loolu mooy wax ki nga xam ne nii moo di Abdou Bakhoum ndax jàpp na ne ñoom bëriwuñu tey suba waxi noppi ci seen biir nee na kon Tapha na noppi Bakhoum wax loolu keneen koo xam ne nii moom noppiwul mu ngay wax mooy ki nga xam ne moo di père Ndiaga Sarr wala boog Ndiaga Sarr di ancien mbër nekkoon fi ci les années 70 noonu la ko yëg li kaay wax ñëw na ci Balla Gaye numéro 2 dàq na ne Balla Gaye moom moo dàq bëre li nga xam ne nii mooy bàyyi di duubalees waaye tamit ñëw na ci ki nga xam ne nii moo di Modou Lo jàpp na ne Modou Lo de booy wër mbër dëgg dëgg dëgg jàpp na ne Modou moom ndaanaan kullu fadrin la loolu la wax ne na daal li leer ba leer Issa Pouye ak Paul Maurice lu ñu ñàkk ci lamb kenn xam leen ko ku dul ki nga xam ne ni moo di Modou moom daal si pendaanam la ko tudde waaye Balla Gaye de ñëwaat na ci digganteem ak laaj moom jàpp ne Balla moo ëpp technique foofu waaye nag moo gën a neex a daan sax ni ki nga xam ne nii moo di Lac de Guiers de 2. Père Ndiakhate daal tey moo xëy ngar naa yëgle kaay bi di sunu waxtaan fa waxtaan wu yaatoo yaatoo yaatoo ba tey yëgle kaay boobu nga xam ne. moo di sunu làmb ke bëri woon ba daanu muy bébé Saloum itam xëy na fa wax fa ay soxla soxlam bébé daal après defet ba nga xam ne ni am na ko ci kaw Franc moom nee na am lenn loo xam ne nii daal mu ngi koy réccu ci combat bi bébé Saloum moo xëy tey ñëw di wax lu mel ni que noonu ka ko daan nag mu mel ni buy Franc Franc ma nag daan nañ diggante ba waa doo parcelle mbooloo am tas la gën a jege ndax Franc yéen li boo xoolee waaw jàmbaar wrestling académie ñoo ko préparé ñoo ko andi mu bëre ñoo ko yóbbu itam ak lu mënte xew daal kon daa mel ni foofa moom sagar mu nga fay xëy wala tas ga daa mel ni moom am na ba pare Fara moom a tamit mu nga fa nga xam ne nii mooy cële koor ci xarit ba ak Abou Ndour moom Abou Ndour jàpp na na loo xam ne nii day Balla Gaye defu ko a ëmb seen dafa ko maanaam neuf combats neuf victoire yu teg loolu la ki ne nii moo di Fara taxaw fi mu nekk nii ci yëglikaay bi ñëw nañ tey di ñu ko wax. bu nu continuer nag dañuy dem fa nga xam ne nii moo di ca làmb simple bi a bëri bi àndul ak dóor mel ni ki nag ki nga xam ne nii moo di libidoor bi ngeen xam bu kayaar ak ki nga xam ne nii moo di obali daal daa mel ni ki fi kenn bii moom fa nga xam ne moo di mbuur ak ci loor lañ fa tegoon ñoo ko ne doññ jël ko yóbbu ko bu nu delloo fa nga xam ne nag moo di record moom ba tey ca làmb simple bi mu mel ni ki nag ki nga xam ne moo di kalmu nduur grand malik moom lul seeseen lañ fa tegoon moom itam moo ko jël waaye démb ka nga xam ne nii moo doon gàmmu gi ginnaaw ba soq dafa bon presse am wax ko a mu nar gàmmu tontu na ko ne na ko li leer ba leer day yow itam a ñi ma daan rek ndax ay mbër lañu duñu ay mbër ndax gàmmu ne na moom jàpp na ne nii muy waxe noonu la mën a waxe ndax noonu la mel waaye su at mi suuflee jàpp na ne soq moom dana gis li nga xam ne nii moo di bidiw bëccëg mu mel ni kon daal combat boobu mu ngay ñëw di dimanche jiinu le 15 mars fa nga xam ne moo di arène nationale ba ka fa jaar nag du kenn ku dul Baba Diaw borom jàmm mel ni ki daal kon li leer ba leer bi bi nu jëm moom nar naa wax kat ndax boo sa njaay ñëwee samedi fourrière bépp jéen bët set mu abal ki nga xam ne moo di jàmm production gàmmu géey soq mu mel ni kon daal làmb ji nar naa sañ waaye arbitre ya ñoom Malick Ngom Sitor Babacar Aboubacry Dramé ñii de daa mel ni kon daal la ñu doon kaas mujj na wex xatt ci ñoom maanaam di fajoo garab gam ka garab ga mujj nag bëgg laa yóbbu seen xafaar ndax lii doyul waar dàq nañ leen da lañ wax ci suuf leen arbitre bi yéen internet di leen gërëm leen sant Babacar ngeen àndaloon si revue de l'arène bi ñu ànd ak yéen si jàngat arène bi Babacar maa ngi lay nuyu di la ziar. maa ngi lay fay Ndeye Coumba di la delloo ziar di nuyu internetu Leewtoo TV yëpp fu ñu mën a nekk rek ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di leen ñaanal jàmm te di ko saako si ñoom bu baax baax. Amin Babacar Babacar nag sunu laam tey nag dafa xëy wala boog journaux yëpp xëy nañu tey nag euh, ñi xam ne spécialisé laam ñoom ñëpp bind nañu tey nag si euh, euh, sanction bi nga xam ni moo wadd si kaw yenn arbitre yi ku si mel ni Sitor Ndour nee ñu nag dem bu nu CNG réunion ba pare nag sanction bi wadd na Sitor Ndour moom lañ ko ràjjee à vie maanaam giiru dundam dootul arbitrer li nga xam ne mooy combat làmb ki nga xam ne mooy Malick moom ak Babacar Diop ñoom lañ leen aj juróomi at ki nga xam ne mooy Aboubacar Dramé moom lañ ko acc ñaari at euh, Babacar muy nag lu bulet si euh, làmb ji nuy nuy acc ay euh, ki ñi nga xam ne mooy arbitre wala boo nu fësal ko nii comme ni ñu ko fësalee parce que nu fàttali nag CNG yàgg na aussi di di ràjjee ay ñi nga xam ne ay kii lañu ay les les hommes noirs boo comme ni leen tuddee. les hommes noirs mooy da ngay wax olof les hommes noirs day gën a lëndëmal mbir yi. mooy arbitre yi nañu sa tenue noire moo tax nu ko wéy les les hommes loolu na waxal rek ñi xamul xam nga ci làmb lañ ne. moo gën a wóor li am solo nag mooy euh, xaw dàq xaw bañ a dàq mais l'essentiel que li ma am man ci ay information que ni moom lañ doon laaj su dee loolu la man Babacar dama naan jërul parce que nit ki lay laaj assurance di laaj xëy na lañ koy waxtaan jéem a régler ay angle moom man Babacar wax dëgg wu ma ko moom dama part personnel rafetlu wu ma ko parce que tamit arbitre yi defe naa li que benn la parce que dañuy te ñoom li ñuy atte soo lañ koy atte atte maanaam mbër mi day bëre pare ñu ne kii daan kii daanu na wala kii mënatul bëre wala kii nangam kii àtte loolu nag te ñi ngay àtte dañuy toog ba pare te leer na ñi ñi mbër mi am na ñu mu àndal ñu mu ñu far kon defe naa arbitre boobu yaakaar naa ne waras na ko assuré waras na ko tinam di ko jox luy tax ba nga xam ne nii xëy na kenn du ko mën a ger wala ñu koy konompor xëy na nag man li ma doon gën a euh, xaar mooy que ñu ne arbitre yi dañ leen a ger ci benn combat ñu jàpp la boobu bu ñu la dàqee ñëpp dañ naan gongo wala nangam mais nag pour man yooyu amu ci parce que problème assurance pour man war nañ leen assurer ah. parce que tamit arbitre combat ba pare ak lamb ni mu doy war nga pare duggandoo ak nit ñi ci ay kaar wala nangam sangam di ñibbi loolu est-ce que sécurité la ci yow koy àttee kuy àtte normalement porte ba muy aw ak fa muy dugg warta bokk ak ñi muy àtte aw yoon parce que chaque jour boo àttee àtte lu la yaa ngi dégg li na nañu xam ne nag li ñuy bind mu di ay text ak lu mu mën a doon texte yi tënk réew mi yi tënk comité yeeg li tënk lu mu doon ay nit a koy def te nit nag lu mu tënk ay manquement mën na ca am lenn rek kamat ci jullit bi mooy alxuraan ji ñu gëm lenn rek kamat ci chrétien bi mooy bible ba mu gëm ak keneen ci diine ba mu ne mais l'essentiel que nag lii moom ñun vraiment du ñu ko rafetlu Alioune Sarr nag moo jiite waaye am na duru ñun itam ñu ngi koy ñaanaa lii nii nañ ko xoolaat daal parce que man pour man lii moom man jàpp naa ëpp la quoi. Babacar est-ce que am nga yaakaar ni que affaire bi fii lay yem wala boog am na yeneen ay mbir mi yoo xam dinañ si xew la fekk nu dàkk arbitre yi ah waaw yaakaar man na fooguma mu man fi yem ah, parce tamit xëy ci li ma yaa xalaat mooy xëy na dina am ay réaction yu ci jib waa làmb dinañ ci wax Haïdé wala ay bonne ay bonne volonté parce que réew mi am na ay bonne volonté dinañ ci wax waa ministre bi tamit xanaa moom mi nga xam moo moo jiite sport bi xanaa tamit dina ci wax parce que tamit euh, am na loo xam ne nii daal pour man est ce que jar na dàqe mais itam bu fekkente ne rek euh, euh, Sénégal daal mu ngi bëgg a doy waar daal mu ngi bëgg a doy daal parce que nag nit ñi moom defe naa ne il faut que ñuy wax li leen naqari de parce que pour man ci li leen naqari ci ngay mën a faje seen ay soxla nit ki soo xamul a ay soxlaam yaa ngi dégg soxla nag dinañ ko poser benn bi mooy buñ mën a faj ak buñ mënta faj même buñ ko mënta faj tamit xëy mas na caa waxtaan ba dàq du ci am rajo du ci am quoi Euh, ñeneen ñi nga xam ñoom noo soxal nag waa Pikine wala boog supporters yi nga xam ne mooy mbëru Pikine ñoom daal li ñu gis mooy dañoo bëgg daal ki xam ne mooy Ama Baldé Eumeu Sène ak ak ak Boy Boy Niang ñoom ñëpp nu nu nekk benn daal loolu daal la waa Pikine di moom la soxla waa Pikine loolu la soxla waaw ay nit daal bu fekkee dañoo bokk lu ñu mën ta xaajoo la leen di noppal mu ñu jéem te yàlla tax ànd nag bu ñu ko waxee te yàlla tax la ca nekk mooy ku ne da ngay muñal sa moroom waaye ku topp sa moroom ci ay matadeem ak ay ñàngam sàngamam seen moom du jéggi fii li am solo nag mooy ñoom ñoo dëkk pikin di ay mbër yaa ngi dégg yàggul ba ñu bëree ci seen biir bokk département bi bokk supporters yi bokk ñu leen di jàppale kon lan moo leen war a mën a tere ànd nañu ànd ñoo bokk pikin loolu mooy li nga xam moom laa leen di wax Eumeu Sène mooy seen mag Ama Boy Niang ak ñoom soq ak ñoom jëtleeg mbëree ne Pikine yépp nañoo ànd bokk ndey bokk baay parce que yàggul ba ñu bëree am na lool nag mooy yàq àddina mooy ñi nga xam ne nii bëgguñ fu jàmm yend buñ ko xamee bu duñ nangu mu xëy fa Babacar nag si loolu sax laay moom laa lay moom laay eh, dolli ki si mel ni Abdou Bakhoum nen daal la Moustapha Gueye moom xëy na mu yaakaar nag mooy xëy pour man man a a su waxee waxam ñoom nañu la Tafa wax nañ jàpp ne day wax xëy xalaatam wala boog la wax comme ne Abdou Bakhoum wax ne leen bàyyi d'accord naa ci lool xëy na man na leen bañ wax ñu bëri bu ko ne waaw ci ñoom li ñu gis waaye pour man Tafa Gueye ruube ruube ñoom pour man ñoo mën a ruube seen bopp ñoom ñooy jéema a ànd te yàlla tax te mooy tudd diglu ñii net li parce que am na ñoo xam ne yàq la ñuy def ah dañuy ñëw ne ama ah lii dem ne booy ñaa lii dem ne ma seen lii noonu am na parcelle am na Fass am na Pikine am na Guédiawaye am na Bawol yow miy ñëw nag kii ñëw di la indil waxi jàmbur jàppal na yokk na ci wax ji wala mu wàññi ci yaa ngi dégg loolu nag balay am yow solal sa daal nga dem ca borom ne ko xew ngeen waxtaan bu ko defee di ngeen trouver ba nga xam ne kenn du kenn dara wala lu waay jàppoon mbir ma dana leer ci yow journal <laughs> sunu tam sunu lamb tamit ñëw na ki nga xam ne mooy Ndiaga Sarr ancien lutteur des années 70 moom daal lu mu gis nee na Balla di doomu Double Less moo dàq bëri fuuf ki nga xam ne mooy baayam waaw bu ko waxee duñ ko weddi ndax li tax mooy seetaan na lees mu bëri parce que ay génération lañ presque Père Ndiaga Sarr tey mu ngi seetaan Balla gay de muy bëree kon bu comparé ñaari mbër yi jàpp ne Balla dàq bëri ah ñu mën def lu dul nangul ko waxam jooju parce que ñun jamonooy lees dama naan xamuñu si lu bari loo xam ne mën nañ ko caa wax xëy na ay arsif waaye li am solo moom mi dund ak moom dund ak doomam defe naa lu mu ci wax itam day doy ki nga xam tamit kad euh, euh, joxe na ay kàddoom tamit si journal muy bébé Saloum moom daan nee na euh, Franc daan na ko waaye daal amul benn rëccu bu mu bëree bu pare ba daanu waaw pour man de sport la doon def rek sport nag loolu mu wax moo si nekk ah li bébé Saloum wax maanaam da ngay daan wala ñu daan wala nga mat si nii daan nañ ko ci cadre sport ki ko daan war na ko mën a daan kon rëccu ba xëy na kay bu ci rëccu dee am ñàkk combat ba mais loolu tamit dogal suñu borom la ma li ci des nag mooy mu dem liggéey liggéeywaat yokkaat boppam xam ne làmb ji jeexagul te carrière am jeexagul mu continuer parce que làmb mën naa naqari bala yàgg ñu dem ba ci kanam mu neex ndax yaakaar naa Eumeu Sène fi mu jaar ci ay métit ak fi mujj ci làmb defe naa ñoom yoolu loolu lépp war nañu servir leçon mais loolu nag la ciy dimbali du lenn tamit lu dul secret bi bariwul liggéey la ak sérieux waaw gëm maanaam nit sax du gëm boppam nit day xam boppam yàlla kay la ñuy gëm waaye nit da ngay xam sa bopp xam sa bopp mooy tax nga xam li nga war a def ak li nga warul a def ak li lay may li nga soxla mais saa yoo gëmee sa bopp yaa ngi juum ndax azza wa jalla kese mooy yow ngëm waaw kay ñëw si lutte simple lutte simple nee ñu nag Libidor ak Obali Libidor moom moo gagné fi nga xam ne moom mooy Mbour Obali moom Djilor moom dafa na leen bagage ba yóbbu euh, mise ba. waaw loolu day du du dugguleet Obali gagné na tournoi wala euh, Libidor loolu moom defe naa ne mooy terrain bi arrivé na à l'heure rek <laughs> noonu la demee quoi ñu leen di féliciter di encourager ñi ñàkk. waaw suñ jógee nag fee nga xam ne mooy suñu laam lañu dem si record record nag moom dafa xëy nag def benn jàngat nee na daal ki nga xam ne mooy Franc def na mieux que Balla maanaam mu na daal Balla parce que am na 9 combats 9 def na lu ëpp li ñu def. yaa ngi dégg waaw parce boo xoolee ba mu débuté ba tey ci carrière am kenn daanaka ko 9 combats 9 victoire xam naa day jàpp ne kon Balla Gaye balaa mooy yegg ci 9e ñàkk na combat. xëy na foofoo tax Abou Ndour ñëw foofu ak Eumeu Sène ñoom ñaar ñëpp kon Franc daal mu mel ni kon moom itam tey lamb bu dee am relève wala ñoom Balla Gaye de ki Modou Lo ñoom Eumeu Sène war a am ay relève Franc mi bokk na ci relève yi nga xam ne ni relève bu wóor a wóor la pour ëllëgu làmb Euh, ni ngi laaj nag comme que keroog nee ñu keroog euh, muy bëri ak Bébé Saloum waa kër Papa Sow si bu bees bu mu créé ñoom noo ko gunge euh, ki nga xam nag mooy Franc nag mi ngi doon explication par rapport ak la moo tax waa kër ñoom Papa Sow gunge ko. waaw xam ñoom ñoo indi waaw moom nag xëy moom ma def la def la mu def xam na la tax mu def ko am na fu mu ko teg waaye li am daal ñun Franc ci par seen mbooloo lañ ko xamoon mais muy ñoom Laay Njomboor ñoom Balla Diouf ak ñoom Lato Lato sax moo toogoon ci 16 bi li am solo nag la ma waxoon fee laay wax waxaat fii rek ca Pikine ja moom laay wax biir parcelle ñoo bokk parcelle de nañu waxtaan balaa ñu leen di ruube moo gën parce que nag bu waxtaan amul rek leneen mën na am te ñoo bokk parcelle Rock Énergie parcelle mbooloo dóor dóoraat ak jàmbaar académie ñoom ñëpp ñoo bokk biir parcelle waaw si biir journal bi tamit mi ngi expliqué ne na sur le papier li gis moom dans les yeux yi moom gisuñu fa waa parcelle kon xëy na moom loolu mu wax nag mën na ko engagé waaye ñun na la ñu gis moom franc mooy que ni ñi la indi moom ñooy waa jàmbaar académie waaw

toog faju ji ba wér dellu siwaat ndax feebar nag faju da caa gën kon defe naa ña ko encadré muy ñoom njaag saa rek biram ak ñamel ne kii noonu loolu defe naa sax waruñu woon koo nangu waaw pour man ñoom am nañ ci erreur encadrement ba parce mbër athlète bu toll ni ngeen jonn am blessure boobu ngeen di ko seetaan muy bëree bay ñàkk ay combat ah loolu moom du du yoon xel sax waru ko xelaat <laughs> Babacar na nu jeexale ak décoration bi nga xam ne Jean Bassa euh, moom Joséphine Bassa moom lay décoré dimanche bi nii euh, Yékini ak Baba Ngom Baba Ngom foofu noonu si Adrien Senghor. waa loolu day xel nangu na ko Yékini lay décoré ci làmb soo Bassa di ko def Baba Ngom ci làmb ah delloo mbaatu sa ca ndaa la ndax yax ya ci làmb cosaani làmb lépp yax ya da koo dajale toog ci. bëre ba bàyyi bëre ñëwaat di tëgg làmb kon ku ko delloo njukkal def nga la la war soo ka ca des tamit baabu ngoom yaakaar naa ne tey lu dul delloo ko njukkal mérite ko ci làmb ndax lu ne def na ko ci làmb animation bu ne ci wàllum tëgg lu mu mënta doon kon defe naa loolu moom lu normal normal di ñaan yàlla rek ñu fekk ko dimanche te taal ko barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam Babacar ñu jeexal nag ak Leewtoo TV foofu noonu dem yaa ngi woon si open press ki nga xam ne mooy Gamou Gueye na fa ay kàddu jëmale nag si adversaire am lu fàttali nag aussi Thiam production moo tëgg na Baba Diaw ko ziar di nuyu yëpp ñoom am di Moustapha ak Abba gars yu ko wër yëpp la boo xam ne ren la dugg ci làmb indi fi ay combat yi neex ndax Pam Ndiou Jackson ku ne gis nañ ko dimanche ne nii mooy Mamor ak Paul bu daaru ka nga xam ne nii moo ca des tamit mooy Jacob Balde doomi boy doomi Jules Balde ak Mbagnick Kairé doom ki nga xam ne nii moom mooy Boy Kairé muy lu neex a neex dimanche le 15 gàmmu nag moom sotte koom nam soom joowu na yëngu na yëngal na kon yaakaar naa daal dimanche bu soobee suñu borom ku ñëw arène nationale da nga gis lu doy doy waar waaye itam balaa dimanche samedi ji Assane ñëw ci diggante ki nga xam ne mooy bébé Diène ak ki nga xam ne mooy Fourière kon mu mel ni weekend bi tamit nar naa saf sàppate ak làmb si kàttanu man làmb 100 pour cent li may wax rek raxuma ko ak dara man moom làmb laay def xaw ma aw ma ci heure itam nag doo naaju tàng comme ndox muy taw parce que mooy sama liggéey dafa am ñu ma ciy xaar tout le temps te su ma seen yàlla daf ñuy kàttanal ñu leen di mën a jox liñ ci soxla loolu am na solo Babacar nag si kàddu leen d'accord di leen jox dig daje suba incha allah mais balaa boobu may nuyu suñu yaay mais soo ne sama doom moo xam ne yëpp nañu astaani ko ma mere nga xam ne weer bi weeru jigéen ñi la nuyu samay doom maam Diarra Penda Rokhaya ak sama doom bu ma bëggal sama bopp Grand Fallou nuyu ki nga xam ne mooy Asek chéri Khoudia Seck depuis Italie yaa ngi si biir Abdou Gaye Baye Fallou jàmmagan Pape Cité depuis aussi yaa ngi si biir nuyu ki nga xam ne mooy Aliou Ndiaye depuis Italie aussi yaa ngi si Babacar nuyu nañ ñëpp ñaanal ñëpp